tey ci ajuma bi ñi nga xamante ne ni ñooy waa société civile daal di nañu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi nag bu ñu sukkandikoo ca Alé Dieng moom nag moo ngay xamle li mbëbët bi ndaje. fukki at gannaaw ba régime Abdoulaye Wade demee mu installé wu régime Macky Sall te mu am mouvement citoyen fort bu ko accompagner ba muy toog sookul boobu mooy m fàttewuñu assise yi. mais M23 dafa wax jëf surtout jour jeudi 23 juin buntu assemblée nationale am lu nguur gi fi nekkoon bëgg sénégalais yi bañ loolu moo nekk socle bi nga xam ne ci lay régime Macky sàll teg woon ak léegi nag ak li tax mu toog digge yi bari woon na trop digge yi diisoon nañ trop digge yi dafa diversifié woon sax secteur d'activité bu nekk moo am ay digge yu ñu def dix ans après. waaye moom mu teewaloon foofu union des forces citoyennes moom nag moo ngay daal di wane juróomi poñ yi nga xamante ni nguurum Sénégal daf cee lajj bu baax a baax. suñu xoolee du ne defuñu dara de am na avancé yu bëri yuñ def ci yenn secteur waaye bari na lu des loo xam ne nii yaakaar ji ci samp dafa rëy ba léegi buñ doon lim dañ fi yàgg waaye dinañ ci tënk juróom yoo xam ne nii kenn du wax ne amul ay yaakaar yu fa nekk. accès au logement accès au foncier dans le monde rural mooy wa wàllu jot suuf pour dëkkuwaay ci réew taax waaye jot suuf ngir bay wala def se activité ci dëkk àll li jëm ci relance économie ginnaaw pandémie bi waaye surtout jamono ji ñu toog jamono ji ñu toll ku xool profession de foi bi bi professeur Malick Ndiaye wane woon da nga gis ñu digg woon ne dund bi njëg na wàññeeku. tey jii foog naa ku dem ci marché bi di nga xam ne njëg yi métti na trop te ñun ñi nekk acteur économique xam nañ ne njëg yi bu yokkoo conjoncture international am na ci wàll waaye taxe yu nguur gi teg ci dund boobu am na ci wàll ñu dem ci wàllu agriculture dañu war a béy di dundee mais politique bi ñu def dañuy accompagner di importer ndax bu douane dee wax ne am na nangami milliards ça veut que encaissé na produit yu jóge bitim réew douane bi ci aju te nag dañu waroon tey douane di liggéey ngir di accompagner produit bu ñore ci réew mi di dem bitim réew loolu constaté nañ ko ak leneen njàng mi am na difficulté ñëpp ñu ngi koy wax sant bi am na difficulté ñëpp ñu ngi koy wax waaye li ëpp difficulté mooy emploi des jeunes yaakaare xale yi ci ñi liggéey li liggéey ak li régime bi def ci liggéey par rapport ak mu diggee woon sore na léegi nag bu ñu wax ay milliards milliards bu ñu paree nañu évaluer xool ba xam mais loolu bokk na ci problématique bi nga xam ne nii nit ñi ñi ngi koy jàmbat surtout xale yi léegi nag muy lu ñu wax relance de l' économie économie dafa war a jógaat te am na réew yu bëri yoo xam ne ni ginnaaw pandémie bi ay milliards yu bëri lañu def ci seen réew ngir économie jógaat te bu ñu nee xaalis booy def ci économie mooy relance ak financement financement de léconomie économie loolu ni ci nguur gi war a def am na lu ñu ci def waaye li des mu ëpp te loolu jot nañu def ko te itam dañuy wax ban échéance lañ jub balaa mat 4 mois dañuy dem élection législative balaa ak ñu dem présidentielle. gannaaw ba ñu defee seen table ronde. waaye société civile ñoo ngay xamle ne koom-koomu Sénégal ak dund gi fii ak ay weer ñu jëm bu fekkee ni ñi nga xamante ni mooy guerre Russie ak Ukraine dakkul Sénégal moom dinañ dund bët gu setagul.